What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? It's my guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. <laughs> yeah, they come in your Pap J, Ibrahim Ndao, Mustafa Mane, the good from Belgium, you know what I'm saying? Some guy big Malachon TV, Ibn Jai, Jane Diouf, Abakri Cham, you know what I'm saying? Guy like big, quoi, you know what I'm saying? But some guys, eh, je vais parler de Ousmane Sonko, voir si discours me fait passer. parce que dama ci ben ben jangat tu vois euh waxala tamit ci mam dour mam dour jazaka si mom lay commencer eh. mam dour jazaka parce que mom vraiment day dour rek tu vois mom vraiment dama ko yeureum quoi tu vois parce que il a besoin de de son corps pour survivre parce que bëgg na gagner sympathie Macky Sall te mom pour gagner kan sympathie Macky Sall mom fenn pour mom fenn rek la ko do meuna mën muy fan muy ci ci Ousmane Sonko dama ngay comprendre nag quoi parce que fayit baaxul barke Soulay fayit non fayit baaxul daanu mënul mënul mënatoo amoon amatoo loolu foog nga am nekk gor dëgg pour maanaam dund ko si pet pour maanaam sa ngor nii quoi dund ko mais li ji wax rek nit ki tànk mi ngi am mënoo xam jikkoom quoi parce que soo amee tey jii maanaam sa jikko yëpp du parce que maanaam li nga bëgg a nga koy defal sa bopp mais si toutefois mu ñàkk si la si la si la si la jikko yi apparaître identité nit ki si lay soog a apparaître lay nekk si am ndax kii coggu maan la ndax mën na muñ lu metti ndax mën na muñ xiif isinfir ndax day jëw day nettali tu vois parce que tant que yaa ngi am rek am bi day nëbb sa jikko yu bëri quoi donc maam góor foofu toll léegi euh, moom dafa fayit te fayit boobu noonu moom tey jii moo ko moo ko sonal quoi mu bëgg tey ji mooy Macky Sall oo ko jox ko par force la moomoon parce que kër ga metti na jabar ji nekkatul député tu moom euh, single am le dernier single de maam góor personne ne se rappelle prestation bu mu def mooy fële comment dire ci ses tu vois mu nekk flop flop doxee nag xam ne moom musique bi amatu ci place léegi li muy def mooy lan jël euh, Ousmane Sonko di ko jéem a def arme tu vois pour mën a jot ci échelle pour mën a jot ci kii euh, Macky Sall ndeysaan yàlla ko yàlla dimbali maam góor yàlla ko yàlla jàppale maam dóor jazaak tu vois ba pare moom nee na ce ce cet imbécile ne comprend pas nee na euh, nee na comment dirais-je Ousmane Sonko da ne les Sénégalais sont indisciplinés mu jël loolu recoupé ko si ay fil buy def nag day def air bu nice quoi day jëw taxaw ne nii Sénégalais yi lay waxal. yéen yéen ñi nga xamante ni ah, yéen i topp Ousmane Sonko dafa réew démb manqué na la ñuy respect nee na lay sénégalais sont indisciplinés wax noonu moom léegi day live quoi Sonko mën a temps maam dafa commencé neex parce que mu ñuy wéttali quoi mu ñuy daaxaloo koon bon Sonko ma ma ñëwaat léegi soyons sérieux léegi ma ñëw ne la maam Góor Ousmane Ousmane bu mu ne les sénégalais sont indisciplinés jox lañ lépp Macky la tu loolu lapsus la lapsus mooy maanaam tey nga bëgg a wax dara nga dem ba koy wax seytaane ma xam ma seytaane xaw ma lan mooy fër euh, waxoon c' contradictoire donc yaa war am lees waxul xam ne kii lapsus la tu mais xam nga jàngoo tamit te xamoo dara dara maam góor xam nga yow moom xam man la yërëm quoi tu donc loolu mooy lapsus quoi tu ah dafa mel ni nga ni Messi mënul football waaye moo jël ballon d'or yi xale bi xale bi maanaam du waaye jël na pay donc bu ñu waxee yenn wax yi moom quelque contradiction mun que ce soit da nga xam ne lii lapsus la maanaam dafa bëggoon wax lii mais làmmiñam la seytaane fël mu wax leneen donc maam góor loolu la quoi tu vois je vais pas m'attarder sur yow parce que tey jii yow dama doon def benn briefing bu ndaw noonu rek parce que yow maam fu ne ni théâtre laa la jàppee quoi su ma bëggee daax akoor yow laay déglu léegi ma ñëw nag si vif sujet bi euh, Euh, désormais il va il va s'exprimer en wolof euh, wolof lay wax parce que la plupart des sénégalais ñoom wolof la ñu comprendre ko tu vois donc muy maanaam tey ji benn benn consommation locale boobu tey ji man dama neex dama neex bi suñ koo waxee en wolof quoi tu parce que tey jii ñun olof la ñu am quoi wolof la ñu am tu vois waruñu nekk ay complexe dafa war a feeñ ci say sol la plupart ay demi saison lay sol ay koppate gis nga boobu koppate la sol moom falaa yi génnee nii moom tu vois am nañu naan naan li nga gis ñoo xam ñu dara Afrique la tu vois Maroc c'est l'Afrique waaw te dañuy soloo nii donc Afrique xam moom donc li ma bëgg ñuy wax sunu langue quoi tu vois mais dama ko yàgg jooy même dans da ngay dem boo demee fekk fa jigéen ñu jigéen ñu amul bopp yi jigéen ñu jigéen ñu complexe yi wala góor ñu amul complexe yi tubaab la ñuy làkk instant bi dañuy ñëw ñoo gën a soof ñëpp dañuy ñëw ça va ay golo yu sol costume comme ay golo yu sol costume wala ay golo yu jigéen ñu sol ay ay ay kii ay robe la yooyu noonu quoi da ngay ñàkk tu deviens ridicule quoi tu vois fii Sénégal dañuy gis ñoom tey dañu complexé seen làkk làkku wolof bi dañu cee complexé tu booy wax sant français def foot sax ñu ne xoolal def na foot lii lii lii quoi ñun olof mooy suñu làkk olof mooy suñu làkk tey ji bu ñu a jàng nekk ay complexé ci lieu de travail yi seen ñenn ñi ñoo xam seen i jëkkër dañuy am seen i doom école ñu ñu ñu jàngaleen seen làkku olof wala seen làkku pulaar bi ñu nàmp mais dañ fay nekk naan alors allez allez allez faire mel ne ay ay ñoo xam ne dañ dem vacances France tubaab bu ñu bëgg seen doom yi làkk ay tubaab tu dis sans killer viens je nekk ay complexe yoo xamante ne ah non moo tax Sonko keroog ba defee ba mu defee ba mu defee kii bi discours bi dama kontaan dama kontaan dañuy wax olof Baye Fall wax olof sol la ñu moom gisee bi dara dàq ko làkk olof dara dàq ko te noonu la riche moo na la majorité olof lay wax ma kontaan ci loolu trop parce que vraiment boobu neex na ma beneen bi may wax mooy maanaam tey ji new world order bi Sonko wax na ko mais dane new Sénégal order non Sonko du nit wallaay Sonko du nit quoi tu vois ba mu ne New Sénégal order parce que nee na nouvel ordre mondial bi mooy lan mooy maanaam tey jii benn benn benn benn link boo xam ne tey jii maanaam tey ji monde bi lépp koy am tu vois benn ñooy yëkkati ñooy dóorandoo yaa ngi fi ñooy waxandoo ñooy tegandoo tu loolu mooy new world order bi quoi nouvelle ordre mondiale bi Macky Sall mu Sonko noonu a expliquer Macky balaa nga def new world order new Dakar order maanaam tey jii bay say wewu tànk balaa ngay jokkaloo keneen di am kii keneen assuréel say arrière ba pare maanaam sa lekk na mat amal sa xaalisu bopp exemple défendre sa intérêt ci lu bëri ko tu vois donc moom foofu la doon waxee quoi tu vois léegi exemple bu terre à terre bi mu indi man ma la ci wax ni ma comprendre sama wasila bi tu vois mooy maanaam tey jii supposons tey yow nga nekk doomu baadoola nga ne da ngay doomu russe pour que Sonko looloo wax nee na maanaam Sénégal tey jii di boxer dans la même catégorie que ay États-Unis ay France du ko jural da koy jural lu dul maanaam tey jii ngaañ la koy jural ngaañ kese la koy jural ko jural leneen ma ñëw si exemple bi tey jii bu yow da nga nekk te doomu nga ne yow ñoom ngay àndal mais kan moo siy mais doomu baadoola bi moo ciy dee tey ji maanaam yow sa salaire papa sa salaire weer moom la doomu boos bi dépensé ci benn ngoon tu vois donc yow nga ne kooku da ngay ak moom mais boo ko surtout boo ko bëggee suivre mais financièrement yaay dee isaan fi parce que ñoom boîte dañuy dugg doo a dugg bu ñuy dem ay vacances Suisse ak yooyu noonu yow fooy demee vacances donc loolu Sonko bëgg balaa ngay def noonu jéem a jaaxase ak nit di bokk ñoom benn marché wala quoi que ce soit day fekk yow nga assuré yow say am sa lekku bopp lépp bopp tu vois mais mënoo nekk doomu baadoola nga ne da doomu boos yaa ciy dee parce que ñoom tey sa papa lu muy sal fayeku trois mois wala muy épargner un an mais mooy yàq ci benn ngoon tu vois donc mooy maanaam tey jii euh, bëy day ànd ak i bëy moroomu bëyam comme mooy lu mu ànd cere luy sundu doon wax ci wa choix boobu noonu loolu Sonko bëgg wax quoi donc loolu noonu mu gën ma ma trop quoi consommation locale boobu loolu neex na ma trop trop trop trop trop trop quoi ci ci li Sonko def noonu ko tu vois parce que vraiment nu nu muy analyser moo gën a quoi dafa dafa jëkk dayoo bi may tëjee mooy maanaam tey jii nee na Macky Sall et euh, Macky Sall a démissionné il a il a livré les Sénégalais à, leur sort à eux-mêmes quoi tu vois foofu man bon Sonko lu ma bon dama dama bëgg wax li maanaam Sonko est-ce que Macky Sall a-t-il le choix quoi Macky Sall a-t-il le choix tu vois peut-être am na ñuy wax naan am ñuy wax euh, l'État est dépassé parce que Euh, mu te ma quoi l'État est dépassé parce que entretien malade, 1000 milliards moom loo ci mënul entretenir amul pour c'est la façon de la manière de gérer mooy quoi mais man foofu li ma je a wax mooy Sonko mais maanaam tey

Macky Sall dem ba affaire yi commencé ko déborder ñii léegi dañuy julli par force ñii ne ay marche la def nii nii nii nii nii Macky Sall soit dafa am benn patate chaude bu mu yoroon wax ni yàkkamti na ko dindi dindi quoi pression économique bi tu vois tëj nañ ñi seen kër mais nit ñi amatuñu lu ñu lekk parce que ni ñi tey jii c'est un secteur informel boo xam ne tey jii ah, from hand to mouth ils vivent au jour le jour ici en ñëw tey jii jaay defaat ni mu tëj marché yi ñooñu commencé na am ay kii yi dañ ko

Donc, trois pressions Donc, il n'a plus le choix, quoi, tu vois. Donc, demande, est-ce qu'il a livré les Sénégalais euh, est-ce qu'il a eu le choix Est-ce qu'il n'a pas peur, tu vois Est-ce qu'il n'a pas peur C'est pas un recul, tu vois. Donc, demande, ça, mais je ne tout le monde, où donner la tête, mais ça, le affaire dépasser, comment tout le monde, tu vois, comment tout le monde, le comment tout quoi ne ne bu gars gars tu vois

faut de responsabilité kenn dootul wax Macky Sall parce que boo waxee mu ne ah man de premièrement dama jëloon sama disposition ngeen disposition yi c'était très sévère Les gens, jël ont une disposition ils ont une léegi kii si frotte si pic tu vois non, les mains. donc loolu la woon donc sama gars yi vidéo yi loolu la woon tey def benn short briefing si Ousmane Sonko lu mu waxoon bi passé tu ya, vois am une nouvelle nouvelles comme quoi que Macky Sall a accepté un vaccin ya. mais je ne veux pas trop m'y avancer parce que je ne sais pas de quel vaccin il s'agit tu vois mais ak lu mu mën a doon rek mooy sénégalais faites comme moi man fu mu suñu mëna a moon vaksin leen vaccin vaccin bo xam te da ngay immunité 40 ans 100 ans yo xam ne tey yow da ngay nekk isin fil man ba vacciné ma man fa ni nanu may dom ben comprimé bu may nan pikir ken mënu maa piqûre ñu ñëw solo ma camisole force nga par force fu ni nii lu ma mënti dal buy bisab lay jël hein buy bisab ngier yoy lay jël nan ken du ma piqûre su ma feebaree vaksin dem hôpital ñu may piqûre dootuma jël vac man la boisson bu jógee feulé sax la boisson bu jógee Madagascar man sax du ma du parce que sama xel yàqu na ba pare nee nañ yi ils veulent nous réduire xaw ma lan lan lan quoi seen plan A yàqu na parce que gars yi ñu doon xaar vaccin bi tu vois A yàqu na parce que gars doon xaar vaccin bi tu vois léegi ñoom léegi plan B la ñuy wut plan B bi kenn xamul y a des gens qui disent que des gens qui disent ay allégation y a des gens qui disent que affaire bi tamit Madagascar la fay jógee c'est pas sûr parce que tamit. ñoom comme que plan A bi yàqu na ñëpp ñu xaar vaccin bi mën nañ ko jaaree Madagascar léegi comme ça léegi bu président africain yi euh, bu ñu un président africain moo trouvé vaccin yi dañ naan dañuy kontaan africanité bi def africain bi mooy wax voilà suñu confrère africain moo ko trouvé kon léegi dañu koy jël sans arrière pensée loolu mën na nekk plan B bi gars yi loolu la ñu wax foofu tamit agent fil xamoon dara quoi donc affaire bi fu mu ne comme soirée horreur vendredi vendredi soirée horreur xamoon seen affaire bi nu mu demee seen vaccin man daal li may wax mooy man plus kii si fraude si pic man daal piqûre wu fenn suma palué paluwee sax gëm naa ne précipice yi fas wala mo jël ki retour à la tradition ba zone de tribulation zone de tribulation euh, zone de tribulation bi jàll dina maate du maté bu ko jox sa loxo tu vois lolu gaay gars yi wax te sama gaay lolu won ci vidéo tu vois di bëggé ñëpp do leen classé sama kanam gu ñaaw gi génn tu vois di wax ni mala la tu vois fekkee wax na dara lu kii rek nit kassa la moy lolu bëggé